ci jërëjëf euh, Abdoulaye Diop euh, jërëjëf euh, passe partout Yacine Pouy Maysa jërë ngeen jëf kontaan ci auditeurs yi déglu RFM yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ba tey Mamadou Mohamed Ndiaye ak Mamadou Ndoye Bane l'homme de tous les temps ban maa ngi lay ziar jaajëf maa ngi lay ziar sama waa ji di ziar hmm. ñëpp jàmm hmm. di ko ñaanal waa réew mi ak waa bitim réew amiin fu doomu aadama te ne rek maa ngi lay ñaanal jàmm amiin yàlla mi borom jàmm yàlla ne yàlla defal jàmm amiin jàmm ci biir kër yi jàmm ci xol yi jàmm ci xel yi amiin suñu mbokk catholique yi nga xam ne ñoo nekk ci koor yàlla nañ ko woor ci jàmm ak salaam woore ko ci jàmm ak salaam jullit yi jël woor ko ci jàmm woore ko ci jàmm ak salaam ñaan jàmm feebar bi génn ci réew mi ñaq yi yàlla nekk njiglaayu réew mi képp ku ñàkk yàlla na la yàlla la yàlla wéral ba doo am ci feebar bi ku la ba doo am ci feebar bi yàlla na jàmm sax ci réew mi ku ni amin yàlla na nga am jàmm ku ni amul ku niwul amin yàlla na nga am jàmm ñi ñaan gi naqari sax yàlla na leen yàlla may jàmm ñi nekk ci plateau bi fii te ñaan gi neexu leen sax <laughs> yàlla na leen yàlla may jàmm baan baan amin ya rabbal baan xam nga lu kaas ñun heure bu doyul ñaan gi boo bëggee di jël heure ci ñaan gi ñaan gi metti ñaan gi waaw ñaan gi xam nga nu ñuy def bu ñu ci réñoowee dañ koy ñaan fecc fecc déedéet ñaan gi du pour yéen di ñaan gi pour ñuy déglu la di déglu xalaas see moo jàmm am yàlla loo ko audio waaw whatsapp audio yi envoyé leen Ndiaye siyaar maa ngi delloo siyaar bu baax Ababacar mbaa mu ngi dox ah, maa ngi sant a ah, jaajëf noonu baax na at bu guddee nga ne gudd na bu gàttee nga ne gàtt. wallaahi déedéet déedéet non bëgg nga ànd ak. ah d'accord waaw ñoom day <laughs> bokk na. Ah, ma ma Ndiaye li yoonam nekk rek lay dugg tey sama digganteeg baan. waaw ah. bokkul ak ah. moom au lieu mu maanu ci non non. Oh, xol bi day. <laughs> il faut mu am fenn fu mu far. lu partenaire yi wax. nañu commencé ci CCPS comme gaa ñi nee nañu buy jàll bu kenn wax. waaw ah, dëgg la comptoir commercial de plomberie du Sénégal mooy spécialiste yi ci wàllu sanitaire fii ci réew mi Sénégal. te daanaka léegi tey ñu dégg leen ci sous région bi ñoo ngi ciy pexe yal na leen ci yàlla defal jàmm en tout cas foo dem ci réew mi matériel CCPS la ñuy wër moom la ñuy jëfandikoo fu mën di doon nag ci Sénégal ndax qualité garantie ak originalité bañ cey fekk matériel sanitaire plomberie mais également. wàllu tuyauterie seen i matériel benn gënu ko ci réew mi eh, ñuy nag champion yu mag ci wàllu irrigation irrigation moom boo yoree ay tool soxla ci ay matériel lu mu ci mën di doon liy indi ndox mi li koy garder li koy pomper li koy wasaare ñu yi xam nañ li wax boo ci bëggee yu baax yi demal ca comptoir commercial de plomberie du Sénégal ña nga rue Valmy angle Ngalandou Diouf wala rue Floris angle Grasland boo demee rue Tolbi ak angle Faidherbe bi également 69 wala 77 401 55 69 beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas moo di Baara Mousso mi nga xamante ne dafa ñëw pour noppal jigéen ñi léegi dindi na fi coono di dëbb dindi na fi coono di tànqal say dëkkandoo dindi na fi eh, coono say loxo di yàqu ndax dëbb bu metti li tax mooy li ñu war a dëbb yépp ci ay matériels yu ñu soxla ay jumtuwaay ngir di ko toggee Baara Mousso def na ko ci ay sachet mhm. eh, jeex na tàkk mhm. mu dee produit pour cent naturel conservation bu mucc ayib boolee ci kit bu mat sëkk eh, képp ku soxla ci produit 77 438 38 85 wala 77 289 41 35 Fanico buy saabu bi waa réew mi di wër saabu bi nit ñi soxla ndax dafay seetal sa yére ba noppi di ko bàyyil xet gu neex mhm. loolu mooy Fanico am na bu mag am na bu ndaw ñu leen di gërëm partenaire lañu ci xalaas mhm. accessible nag marché boo dem boutique boo dem boo laajte saabu Fanico am na fa fépp kay ci réew mi fépp ci réew mi dinaa vérifier non neex Euh, muy xeeñ lu neex. Hmm. waaw parfum nga xam ne kon saabu na egg pire rek. moo fa jaar euh, am na bu mag am na bu ndaw. et puis euh, dafa gaaw a xëpp hmm. sakkan teg ci. Hmm. comptoir commerce établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère. mooy borom vite fait. kooku moom doo laam-laamee ndax egg na piram. ah moom ma nga fa. voilà mi ngi noonu ñooñu indil gaamu vite fait muy cuuraay bant bi dàq yoo indil ñu gaamu vite fait mu di pâte dentifrice vite fait mais également dañ cee teg frotté vite am na pommade am na tube bu mu ci mën di doon boo koy jëfandikoo moo gaaw ci yaram buy metti mhm. moo gaaw ci delloo ay muscles seen place moo gaaw ci may la jàmm euh, établissement waa kër Serigne Touba Fall frère ñu mën leen a jote ci 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 441 06 38 ngir seen i commande wala wala ay ay ay renseignement mhm. euh, ci euh, gaamu vite fait yi dafa mel ni nii nii nii dafa am lu xew ci biir banlieue bi waaw. Mhm. xalaas express. waaw wax ne Pikine tali bu bees. waaw dafa am benn couple. mooy jëkk rek jabar boo xam ne dañoo xëy fekk leen ñu faatu. Mhm. ci seen biir nekk. Hmm. loolu doy na waar. Euh, passe partout moo ñu jox xibaar bi ndongaka RFM banlieue ma nga ca yoon ba. Mhm. mais ci ni ñu ko waxee police ñoo fa nekk jamono ji ak sapeur pompier yi. Mhm. voilà mi ngi noonu Pikine tali bu bees la xewee. Mhm. xewoon na tëngeej fan yéen a benn couple bu ñu fekk mu faat effectivement xewoon na tëngeej mais bi moom tey jii léegi lañ yeewu fekk. lañ ñu faat nga émission bi jeex euh, dinañ ko mën a am moom. moom donc mu wax ñu ci ay information mhm. waaw dinañ ko dinañ ko dinañ ko toppal ñu loolu. baan lu kii wax. histoire démb bi. am na lu question bu Ndiaye laajoon ca doom ja. doom ju njëkk ja fu mu jógee déglu ko. moom bi ngeen nekkee ci tefes gi tefes gi la fait que nga yóbbu si nit ñi dañuy yaakaar ne da ngeen doon labatante avant sànq ji di ñëw. su loolu nekk sama place la ma fekk genn ngoon ne dafa ne dafa toog ci sama banque ci sama buntu place toog ba mu yàgg may dugal ba jeex du ñibbi mu doon maa expliqué man fu ma feneen balaa ne ko ah man de sama kër wax dëgg yàlla laa la wax nii sama soxna laa fa nekkal ak ci ma dimbale ma rek bu subaa damay dem damay kii benn bis boobu la fa ñëw yaa ngi dégg ba mu fa ñëwee expliqué ma loolu may yàlla yi ànd ak moom ñu dem ca kër ga waxtu ñu bisu koor la woon ñu war a korite ji ci suba ga yaa ngi dégg ñu ñëw ñu abal ko fu mu fu mu tëdd ci xale yi bi mu fanaane ba bët set ñun ñu daal di dem korite ji Bambey ci sama ci sama yaay maag sama jabar yaa ngi dégg bi ma korite jee ba ñëw laa fekk mu yor doom laa la wax mais doom jooju laale woo ci benn doom du ma ñëwee laa fekk mu yor mu yor ab liir bu ndaw ci biir kër gi muy jooy ma laaj ko ko waaye lii fu mu jógee mu ne loolu dañ koo biiraloon seen dëkk loolu moo tax seen waa kër génn ko te dafa mais woo léegi nag bi nga xamante ni bi nekk na fa nag sama soxna ne ma léegi day génn ma ne ko ah, nañ ko bàyyi ginnaaw day dóoru ko jigéen moom ñu dimbale ko ba am ay fan ngeen ne ko demal mu lànk waa ma woo waa kon bi ñëpp ñu ne ko demal mu lànk na mais doom jooju laale ci benn yoon wa doom jooju noonu benn benn militaire bu sappoor Thiès euh, bu nekk Thiès ca Kamba mooy papaam moom moo ma ko wax ci làmmiñu boppam foroon ko di ko dimbale gis na ko li si mujj xew léegi nag dimbale doomu aadama dimbale ñi di moo ko moo ko gën loolu rek laa bëggoon xam. laaj juróomi yoon de. Ah. xam nga lu tax. Hmm. mooy bari na ñoo xamante ne ji bii fii di jàll. Hmm. loolu lañ doon laaj mooy lu tax hmm. waa ji. nangu koo jël. ndax euh, yenn baax yi pour nga gis ko ci nit. exception la. mooy un ah. deux ndax jurul doom ji. ba tax mu bëgg koo fat. ndax jurul doom ji. ba tax mu fekk ku yoon liir bu tooy xepp mu dem di ko ñaani. loolu lépp ay question la yu ñu doon posé mais comme moom wax na ni mu demee. mat na sëkk léegi. Ndiaye gannaaw fii moom xibaar yu wér. te wóor mhm. yu amul benn laam-laamee amul benn parpar. Mhm. fexe nañ ba jokkoog ndaw sa. ah bon waaw. boppam. mooy. Mati Ñang waaw moom mi nga xam ni. moom moom la waa ji tuumaal ni jabaram la. da koo miiraas jaay jaay jaay bagaasam yëpp. Passepartout waaw waaye defar ma baan benn kaasu kafe bu dëgër. waaw kii du nit nag quoi. <laughs> dégg dégg ko dégg eh, eh, koo xóotul tubéy ngeem laa ngi koy. xaar avant maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa ngi jégalu. dégg nga. te li ci gën a yéeme li nekkoon information bu mag bi mooy waa ji bi nee na bi mu jógee bitim réew. Mhm. dafa fekk jabar ji am ñaari doom yu mu juru jabar ji nag mooy wax nii déglu ko. sama jabaru ndijaay fa laay dem di jaay jën wetam ci kaw poor ba moom foofu la ma gisee daan ma denk si jën da daan yenu ay kees di yebbi ci gaal yi foofu la ma gisee. ma ne première fois bi ngay dem këram nu mu demee woon. daa ñëw fekk ma tebe. damaa wax sama yaay ne ma de ko dama am benn jigéen boo xamante ne damaa bëggoon nga gis ko. damaa bëggoon ñu dem gis sama yaay. dinaa njëkk a ñëwee këram. fekk ma fa kenn ku dul yaayam. yaayam kese laa fa fekk yaayam ne Bambey la jóge nekkutoon nekkul ak jabaram. borom nekkul woon ca kër ga. nekkul woon ci kër ga. man ba may ba may dem di dëkk ci kër googu. moo ma daggal. ma wut sama sëngal. maanaam néeg ñax yooyu def ca dëkk fa man maa sama bopp su ma xëyee ñafe ji ginnaaw bi si la ma bëgg bi ma bëggee ma yebal ko suñu kër mu dem fa ñu woo ma téléphone ni ma ndax bëgg nga ko waxtaan ñu waxtaan ba d'accord ñu mayee ñu man la demee biñ ma mayee ñuy màggali bi ñuy màggali waxul jabar ji ni ko takk naa jabar jabar ja Bambey la nekkoon abi la tudd waaw diggan jabar jooju ndekete waxu ko ni ko damaa am beneen jabar jabar jooju loolu la meroon fay juróom-ñaari weer dem seen dëkk fu ñu naan daaru nayim fa la jabar ji dëkk moom ndulo la dëkk ñu dem màggali ca la jabar ji jaaree noonu fay ma fexe ba jabar ji ñibbisi ci kër ga yow ma fexe ba jabar ji ñibbisi ci kër ga du fii du mbuur loolu Bambey la bi may takk waxuma ni dafa am jabar dafa ni ma moom musta am jabar fekk am na jabar ba am doom ñu ànd màggali ñu war a màggali ma fekki fa beneen jigéen ci seen kër ma foog ne rakkam la ndekete jabaram la jabar ja loolu la mer fay moom balaa muy dem di mbëkki ci mbëkk mi la jaar laataa moo mbëkki jabar ji dee na jabar ji ñëw nañ ba tàggee ko biñ ko tàggee man lañ fa fekk maanaam man lañu fekk buur benn mbokkam ni ma Cheikh bu ñëwee nee ko abi dafa gaañu bi muy dem man damaa teggi sama nag ak jox ko ak xaalis bu mu dajale woon ak beneen xaritam bu nekk nekk mool jox ko xaalis mu dem mbëkki sama mag bu góor jabaram moo ko jëli île des Canaries Madrid làkk ko demee fu ba xam ba mën dalee na wax yow danga nga am beneen jëkkër déedéet ah ñaari doom yi nga am pour ku leen jur juru leen benn doom benn doom bi taawu viol la woon ba ma dem police def sama déclaration waaw benn doom bi mooy benn doom bi mu fi bàyyi woon bi mu bi mu doon wax ni moom nga jëlee woon Thiès déedéet sama jële woon Thiès dama doon dama doon sëy tàggoo kooku jógee Thiès ñëw di liggéey si Mbuur d'accord waa léegi moom lu tax mu ñëw fekk fa nga am ñaari doom ah kenn ki kenn ki viol la te xanaa doom ji duma ko rey xaw ko parce loolu yëpp après ci lotissement bi la. ci lotissement ban noonu. lotissement bi mu naan moom moom kër gi. mais damaa sàcc kàttanteem. dafa rek moom dafa dafa ah. bi mu fiy jógee jabar la fi bàyyi. Ah. won na ma ay kayit yu bari yu wone ni yow daan la yónnee xaalis weer wutee. dëgg loolu. voilà daan ma yónnee xaalis. waa léegi lan moo tax mu ñëw fekk fa ñaari doom yu mu juru. ma ne la benn doom bi. taawu viol la. dañ la cee violé ci ginnaaw moom bi mu demee. waaw mënuma la ni ku ko def. léegi ñaari doom yooyu laa bëgg nga expliquer ma benn doom bu ci nekk nu mu ni mu ñëwee ci yow. déggoo li nga ma kenn ki violé la. waaw ku njëkk xaw ma ko. xamoo ku lee violé. sama kër état boobu damaa feebar nekk ci béyu dëkk yi dëkk ci benn mbaar fi ma dëkk amul clôture amul dara. waaw temps boobu instant boobu damaa feebaroon. ma jënd ay garab yoo xamante ne daf may nelawal. ah nga nelaw ñu fekk la fa téq la. waaw. xalaas. Njaay. ban. dikkam ñu def ay la noo ñëwal. pon bu réegul de. doxalal ko. doom jooju xaw ma ko nag ba nga xamante ne dem naa ba ëmb. ñaari weer gisuma fóot. ci laa commencé di feebar dem hôpital ñu ne ma ëmb la wax ko ko ma ne ko man wax dëgg yàlla affaire bi jaaxal na ma parce que saa feebar naa sama bunt damaa fekk mu ubbeeku affaire bi jaaxal na ma. kon daal da doon nelaw ki lay violé violé boo dem te xamoo yëgoo yëgoo. damaa feebaroon. indi ay garab garabu nelaw. ndax man maa ak samay ñaar ñetti doom. ay xale lañ. man daal xamuma kan la. d'accord léegi beneen doom bi nag. beneen doom bi daa jëmmi jamono bi nga xamante ne lotissé nañ kër gi ba pare dantitéem bi muy wax ne dama koo sàcc dantitéem googu maa ko yoroon defaral ko ma gore ne comme moo ma mayoon te man aw ma dentité instant bi ma jël carte d'identité am enregistré ci euh, turam wax ko ko mu ne ma garaaw yow jigéen nga man mën naa am fu nekk kër kër googu mu naan moom moo ko moom ba léegi man maa ngi ci deuxième doom ci premier doom bi expliqué nga ma noonu nu mu demee diggante boobu nag la takk jabar fekk Sénégal takk jabar comme ni mu ni ma takkee woon nëbbu ko jabaram jële takkaat jabar nëbbu ma ko ma dégg ko ci koñ bi diggante boobu lu ma wax mu xëpp ci kaani lu ma ne nii mu ni lee xeem la kooku du daraam daa nekk ci koñ bi chaque jour di ko woo naan ko mëti dafay def lii mëti dafay def laa mëti dafa yor carte carte lan loolu la ma daan woo téléphone ni ma damaa yor carte caga damay dem sali bo waaw doo ma déglu ah man yow sa expliqué bi dafa gudd lool donc dama koo bàyyi mu expliqué ma ni dinaa wax deuxième doom boobu yónneewu ma dundalu ma ba tey jii may wax ak yow ñun ma man naa la xam yaa say doom def leen jigéen boobu laa waaw ma am ci ma bëggantee ci laa am ak moom doom mais ñaari doom yi bokk ñu ndey baay ñaata doom nga am fi mu nii yow ak moom am nañu ñaari doom yu jigéen man am naa ñeenti doom mooy ku njëkk ka avant mu lay takk déedéet am naa juróom waa waa waa waaw. te bi mu ñëwee. ñibbi siwul ci kër gi ndax kër gi ma nekk musu fee dëkk musu fee fanaan. ku ñëw fekk sa jabar ñaa am ñaari doom yoo juru. déggoo li ma la wax de daa fekk mu takk beneen jabaram. ak magam. Ah. ak saa mu naan ndijaayam la. ak keneen. damaa soxla woon kër gi. damaa ñibbisi dama fi ñibbisi man ak sama jabar. ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko léegi may ma. saa samay mbokk ñu dimbale ma fii ak fan. ma toog deux jours. mu indil ma plainte. ci la ma indilee plainte ma wuy ji police bi ma demee ñu may laaj ma commencé wax policier bi ne ma demal toog fee yóbbu ma garde à vue ba six heures ni ma demal ñibbi dinañ la woowaat. waaw ku góor ki ku góor ki ñu kii fanaan noonu ci kër gi kan la moom. kenn fanaan fi day wax lu ko neex rek ak di yàq sama der ki jur doom ju ji moom est du moom. déggoo ñu ma la wax. kenn fanaan benn néeg laa yor. waaw ah, may nag ñaari doom yooyu mu yi mu nag yooyu yooyu nag moo indi moo indi coow ni xam fekk sa jabar yor ñaari doom yoo xam ne juróo leen loolu dafa yéeme nag soxna si. bi ma tribunal jugé. moo ma toog loo waat ci kër gi ni ma. jabaram nga ba tey amoo droit génn ci kër gi tant que amu leen doom yoo xam ne sa jëkkër juru ko. yow sëy bi tasagul ab sëy tribunal lay tase su la su la nee fase naa la pare taxu ta taxul mu tas. su ko dar rek ci fëtam la parce que bu ma téye woon téye bu baax téye ma defu ko dafay ànd ak yeneen nit yeneen nit di ma sonal di ma bund lenn lu ne mu di ko def. say moroom rek ñu ngi fi abandonné seen i morom mais say morom mais taxul ñu def lu bon. su ma abandonné fëtam la. am nga doom joo xam ne nee nga saw far moom nga ko amal. beneen bi nga ni dan laa violé te ki la xamoo kan la. ko de. ci li lépp ci biir sëy bi. li may dund fii yëpp waxuma ko. mais loolu lépp nag warul tax tamit. Ah, nga nga def na ko su du noonu bay am ñeneen ñaari doom ci àll bi wax dëgg yàlla. yàlla loolu la dogal. mu ne yàlla loolu dogal. man de pare naa ci awa. <coughs> yow laa ko bàyyil. man ba ma paree ci waxtaan bi mooy première bi. waaw bi mu ne moom dafa yeew fekk ñu ubbi buntam. waaw te kenn mësta ubbi buntam. Hmm. baan kii. Mamadou Mame Ndiaye moom ban buntu <laughs> man man keroog laa ci pare. ban ah. nee na hmm? pare na ci yow la ko bàyyee. waaw waaw. yow nga ne pare nga ci bu yàgg. waaw yow fi nuy yàqal nañ la lépp. man ay waxi couple ak waxi politique. man yàlla wàcceel na ma ko du ma ci wax. man nag dama mus a bokk. <laughs> da naa de. femme bii. Ah. waxu dëgg mu fi wax nii. waxu dëgg ah. yow Ndiaye gis nga su ma waxee sama xalaat. waxu dëgg day waxu dëgg de. yàlla dafa yàlla. waxal dëgg donte dan lay rey. lii ah. waxu dëgg. ah mi ngi noonu de. wax na dëgg waxu dëgg li ma mën a xam daal mooy. waaw hmm. ah, am na situation yoo xam ne boo ca nekkee waroo di wax. waxu dëgg de. parce que li olof naan ku wax feeñ. Mhm. li wolof naan ku wax feeñ. violé nañ ma ku la violé nga ne xaw ma ko an kon. déet nooy amee juróomi doom ba pare fàtte kenn ka wax mu yàgg ne noo juróom sax la. mais <laughs> kaat ba eh, sànq ñu ngi lay wax. waaw eh, benn affaire bu xew Pikine tali bu bees. waaw Ndongo. Mohamed def. Nduba. yaa ngi foofu nga xam ne moo di fa yëfee xewe Pikine tali bu bees lan moo fa xewe exactement. waaw jàppale na fu mu toll nii kër gi kenn mënu fi dugg waaye li ci biir euh, du jàmm te lu lu lu lu naqar lu wala lu métti sax lu tiis lay doon fu mu nekk nii oto sapeur pompier mi ngi taxaw ci buntu kër gi nee nañu benn couple jëkkër ak jabar lu dañu fekk seen biir euh, néeg ñu daal di ñàkk seen bakken euh, maa dugg ci biir ndaxte policiers yi ñoom comme ñu ma fi jiitu certainement mën a dugg ci biir. mais oto sapeur pompier mi ngi nii taxaw dama xamul ndax dañoo jël pare dugal ci oto bi wala ñu ngi ci biir di def euh, constatation yi mm-hmm. mais jàppale daal euh, mbooloo mi tamit ñu ngi ci buntu kër gi yëf yi daanaka jëlee na leen kaw mu doon xibaar xam naa da leen da leen a a bett mi ngi amee nag fi nga xamante ni moom moo di euh, Pikine tali bu bees fi yemoo ko Asia Prenteña mm-hmm. ah, boo jëlee tali karo bi tali karo bi ñi ñu ñi miin Pikine xam nañ ko boo jugee tali bu mag mel ni ku jëm rond-point tali bu bees teel karo bi ngay njëkk a jot boo jàddee à gauche def tout droit ci kaw euh, daanaka foofu la nekk juste ci kaw ci kaw tali bi Mouhamed Ndiaye. ñi nga xam ne ñoo nekk foofu amul ñu ci xam couple bi maanaam wax ñu ndax bu couple bu mag la wala bu ndaw la euh, xam ci ndax bàyyi nañu doom seen ginnaaw am déet euh, amul amul ay témoignages yoo yoo yoo jot a for foofu. waaw ndax nu ma maa ngi doon agsi nii mais yomb maa ngi doon jéem a làmbaatu. Hmm, waaye xam nga nit ñi tamit dañuy xaw a moytu. nit ñi dañuy dañuy xaw a moytu te am na loo xam ne tam boo ko bëggee liggéeyee il faut nga dem ak discrétion. d'accord looloo tax mais xam naa dañu ci gën a déglu. si waat ndongo ka ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup. ma looloo xew foofu ca Pikine. merci passe partout ah. xam mm-hmm. naa ne ëllëg moom dinañ ci am lu leer. ëllëg sori na. Mm-hmm. Ndiaye 12 heures. nga am ci lu leer. lu leer mm-hmm. incha allah Ndiaye Ablaye Diop mii. Ablaye Diop la tudd Mbour la dëkk. am buuse la. te la Mati Ndiang. ah waa Fass astafurlah Mati Ndiang. Mati Ndiang Mati Ndiang kat dañu ko ba mu ko bàyyi yow nga bàyyi ko Ndiaye Ndiaye daw. Ndiaye génn ci. ayca kon nag léegi Ablaye Diop mii moom dafa jaay këram. Mhm. ay bor la amoon nit ñi tëqatal ko ci biir kër gi ñaari jabar la am ak fukki doom ci biir kër ga. waxuma doguma la de. waxuma nag ñi tudd Mati dañoo sikk na tur yoo xam ne boo ko déggee ci jigéen rek xam nañu bari bari histoire ah, ne ji maa ngi nuyu sama sœur Mati trois pommes ma am na tur yoo xam ne boo ko déggee ah turuñu pànk yi la te yow xarit lañ xam par exemple ay maré yooyu dañoo dañoo dañoo dañoo pacifique tur yi sax moo pacifique am nay kumba yu tàng nag kumba tur yi dañoo pacifique ah. kumba moom dañuy kumba moom dañuy. tey eh. dal am maanaa. Ah. kumba moom extraordinaire moom. mati mati. Eh. doom ju xam ne mati ndaw la tudd. joor mat mm. jo ah. <laughs> ndumbe ndumbe <laughs> dañuy metti de <laughs> yaasin. xoraja ñu compliqué la. Ndiaye déglul jabaru Abdoulaye Diop bi ñaari jabaram yi li ñu wax déglu ko. dama jëkkër dafa amoon ay problème jaay di jënd ñi mu doon jaayalante ko jëndal ñooñu da leen doon fay normal bi mu leen di fay normal mu dem ba ci yàgg buñ ko joxee nag yi seer bu ci jaayee yëf yi moom yàpp lay liggéey waa buñ ko joxee nag yi seer bu jaayee nag yi perte bu pertee kii dikk ni ko fay ma kii dikk ni ko fay ma mu jël li mu yor séddale leen xam nga kii du matal kii du matal ñu dem ba liggéey bi yàqu ñu mu ameel ni ko dag ñu ñuy fay mbaa ba kenn tëdd ñii ni ko dag ñuy fay mbaa xam naa nag lu ko tax a jaay këram moom sooda ndax tuxul naanu sàngara ñun jaxasoo nag xam naa jaay këram faye leen ko. yow ku leen daa jaay kër moom moo la ko wax. déedéet kayit laa fekk fii mu def ko ci enveloppe bi muy dem fii la teg man kayit bi laa gis fii ci enveloppe bi ma ko ñu ne ma lii jaay kër la lépp kayit bi signé yëpp ngi nii ci man ma ko liir la ma ne kii jaay na kër gi après nag ci laa dugg ku ma am nga doole dem naa ba. est-ce moom ba mu ne la damaa jaay kër gi wala damay jaay kër gi. jaay na ko ndax lii signature jaay lan ma wax moom la. kooku xool na ko moom la da jaay. jaay ko ci 4 millions la ko jaay waaw te kër gi am na juróomi néeg am courant am ndox ak ay douche ak soo xam ne tabaxaguñ ko. kër gu rëy la ñun dong la ci ñoo fi dëkk ak sunu njaboot. est-ce que moom mos ngeen a wax ci bor bi ak mbirum jaayum kër gi est-ce que mos ngeen cee waxtaan yow mi bor bi moom heure bu fi nit ñi dikkee di ko fayu ko da doon wax naan bor bi bor bi bor bi mu amoon nu ma ko fayee bor bi mu amoon na ko ndax bor bi moom tiis na ko jaaxal ko ak ñoon ñu fi doon dikkee coow li saaga wax ji xam naa. moo ko jaxase moom ba mu jaay ko waaye ku bëggu njaboot la nag lu ko jaay la moom lu réer boppam la jaxase ko ba mu def ko. nu mu tudd moom. Abdoulaye Abdoulaye Diouf waaw. moom kañ ngeen ko gëj gis ak ba muy dem est-ce de. boobu moom mi ngi naan man jaxase ko naan ko amatuma lu ma jaay ma ne ko yow daal mu ne ma ne ko wàllum jaay moom ma ne ko ma ne ko amoo dara loo jaay. ñii ñu ngi lay bëgg a ne loo leen fayul ba kenn te du naan gendarmerie nan leen seet bi naan ma naan ko nan leen dem ñaari xam naa a ci la jaxasoo ba xelam ne ci jaay kër gi. Ah. jaay ko fayee leen. waaw yow yaay yow yaay ñaareel xaritu jëkkëram yow sa waa ji bi muy dem taagu na la. man ba muy dem tàgguwuma de ba muy dem tàgguwuma. ñoo jékki-jékki rek gisatuñ ko. ci mbirum njaayum kër gi mosu cee waxtaan ak yow dara. déedéet. mbiru bor bi nag. mbiru bor noonu mos mosuñ cee wax leen. mais xamoon nga ni daam am mu ameel. nit ñi fii dugg di lay soog xam ne kii dafay yore bor. ñu woo ko jotuñu ko mu ñu dem ci kër xaritam ba dem laajte ko fa ñu ne ko gi kooku de dañ na Ablaye doo ko jot d'accord léegi est-ce que moom dem ngeen ci ay mbokkam yaayam moom nekku fi yaayam gisu ko moom gisu ko demee léegi lan ngeen a dunde dañuy jaay duñu jaayee ba pare dañuy cotiser duñu cotiser toggal suñu doom moom ñaata doom ngeen am la la fa ñaari soxna la am ak ñaata doom bàyyi na fi fukki doom ak ñaar. douze douze douze bant daal la am ak yéen ñaar muy quatorze. ci biir kër gi mu daal di jaay kër gi noonu daal di dem. kayiti fii la ko bàyyi nekkati. ne kayiti yaa ngi te kayiti da koo signé ba pare sax. ñeenti million. kon lool génne du ñu am suñu jëm. Abdoulaye Abdoulaye ngi lay wër. sonn lool sa jabar sa ñaareel. foo mënti nekk ñu ngi lay wër. suñu génnee fii dinañ sonn lool. waaw ñu xaar lu mu mënti jël ci yàlla jeexu li tax mu def li nag jaxasoo ak jaaxle jaaxle tax mu def ko waaye du bon du taxawaal du leen ku bëgg njaboot la nag dañuy dem xëy jaay ñun xëy ko sa togg lekk ak suñu njaboot ko buñ togg añ ci wóor na ma ne kër gi jaay na ko leer na naa ñu kayit yaa ñu def na ko nag waaye jaxasoo tax mu def ko de ak bor yi ko sonal ak nit ñi moo tax mu def ko mi ngi noonu ay bor la amee xam naa ni mu bañ gàcca ba gis naa kayitu kër gi nag ak yëpp euh, ak ki ko jënd ki jënd kër gi mu tudd Sagar góor la nag Sagar xaw ma nan. moo jënd 4 million et alors président na de. waaw xaw ma nag nu muy demee Ablaye Diop daal su déggee lii. Hmm. na xam ne ñaari soxnaam yaa ngi koy wër am nañu fii nag am Ablaye Diop xaw ma ndax moom la. Euh, allo président jot na de. jaajëf ñu dem président de la République président ci président mooy Colobane ak Sandaga du Sao Goro du Francfort Victor Hugo du président de la République ay plan résidence président de la République mi nga xam mooy démar historique situé dans le quartier de Kaplan Kaplan Sénégal construit en 1902 oui sama ne Fatou Ndiaye ak ay ay Dondora mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de France centrale AF le personnel sa ko jaar 1964 ba bu jëf kër fa ba la 2002 Macky Sall depuis 2000 mi nga xam mu xaaral ma xam ki woote ba ko ca président daal bu ko ko la roon fa lay woote salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. man la Abe Abe Abe Zak Seck. ah Abe Zak. man la kay. Abe Zak ñu ngi lay nuyu. xanaa xanaa di xanaa di am mbégte rek di di woote waat ci palais bi. jërëjëf jërëjëf. xam nga li may woote bariwul la déet bariwul yow kay daanaka at ba at léeg-léeg ngay woote. wala bu problème amee ci réew mi. mu mhm. dégg la nga woote wax wax ju rafet. di daay wallaay. ndax ndax ndax ndax xam nga ni réew sunu réew mi réewum jam la. waaw waaw. te jam ci la lépp xaj. ah. ana président. président nag dafa génn léegi de. ah. waaw waaw dafa génn léegi nii. ah moom jot ko jafe na de. daa yàggul nag xam nga dafa nekk ci ay lijjanti ay affaire yu nekk xam nga ah. vaccin yeeg yooyu. ah vaccin yi vaccin yi dañoo ñëw ah mbaa pare nga pour euh, waxtaan ak waa euh, kii bi. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci waxtaan ak ñoom. bi pour nu jël ci vaccin bi. ah bi kat jàmm rek la indi kay. Hmm. jàmm rek la indi de. Ah, kon baax na kon baax na ndax ndax bu tollee ñu ñu ñu tur résolution pour pour gars yi faju mm-hmm. a ah, il faut il faut il faut ñu ñu ñu indi vaccin nag. ndax mm-hmm. mm-hmm. ah, vaccin vaccin bis fu ne. sa doom ñu ñu ko vital ko ñu vaccin ñu ko vaccin ta xamoo lan la. yow kay na na ngaa njort bu rafet rek. waaye nag woor di ñaxu ci boppam nag àndut. ah waaw yéen da ngeen waaw waaw waaw yéen a ngi yéen seen dugg sa yaram. moo tax moo tax moo tax waa jàngo bi. ak catholique yi nekk fii lépp yëpp yëpp. ñoom duñ mën a ñàkku. duñ mën a ñàkku. léegi kon yéen ah nu bàyyi leen ba ngeen woori. waaw xam nga nag 45 jours la. 45 jours. waaw. waaw déet mën nañ koo xaar. ah mën nañ ko xaar. waaw yi du ko. ah déedéet du périmé vaccin bi day. dem ba vaccin bi am na kii am na date d'expiration. xam nga Afrique dafa tàgg. waaw te vaccin yooyu àndut ak tàggaay. jërëjëf am nay frigo yu ñu ko def. ah frigo yi ma mat nañu. waaw mat nañ sëkk kay. ñu ne chrétien ci bariwul noonu nag waaye bari sax nañ de. nit ñi kay ma ngay sedd guy moom. Ah, ah, ah. waaw waaw. ah waaye nag euh, euh, war nañ ko fi jëloon ndax xam nga xam nga xam nga pàcc bi bu ñëwee. Uh-huh. ah ñu mën di nga lax. waaw waaw waaw ñu mën di soos soosu baax. waaw ñu mën di tufe tufe baax. waaw ñu mën di nga lax tamit. Uh-huh. ñu mën di ñu mën di kii rago. waaw te googu sax ñun ñii bopp. xam nga yooyu itam day neex rago mbaam. rago mbaam kon ngaa ñam rago mbaam déedéet man nag supp bi laa mos a kii a ñi ci ñeex mi rek laa naan. ah supp mbaam. waaw man ngaa ñaan ci supp mbaam. waaw ci supp bopp bi bopp bi. noo ko gisee. supp ah saf na saf na. dina surtout surtout buñ ko poobee. <laughs> koy xorom mu saf xoromul mu saf. surtout ko poobee ba pàccal ci tuuti limon. <laughs> waaw ba nag ci tuuti kaani. waaw gis nga soo mbaam daa neex de. <laughs> Ah, ah, ah waaw loolu la di. donc ah. yaa ngi yàq sama koor gi. ah déedéet ko. yaa koy bu ko yàq de man ma lay dégg sama xol day sedd. ndax yow da ngay nit koo xam ne defar rek nga fi nekkee. ah waaw la moom a wax yow daal ni nga toogee ci réew mi. Mm, mm, baax na jekk na te yiw na ndax nag tubarkàlla yaa ngi defar yow jikkoy puso nga yor da ngay ñaw rek. parce que ku fi xam nga xam nga Sénégal. Ah. ku fi nar a wax lu bon tuug sahay ɓasa pategin a hat sahay tuug tuug sakit tuug saya sakat tuug ah, ku fi nar a wax lu bon rek tuug saka tegin anda hat tegin waaw waaw ndax ñu ñëpp benn lañ ñu ñëpp benn la rabbe ndeysaan abbe waaw eh, kaddu gu sell gu mujj bi ban lay doon eh, kaddu gu sell bu mujj ah. yooyu ñu wax uh-huh. ah nañ bàyyi bi jàll rek baax na te a ragal nag mu inspiré moo te gere jeen yoo xama leen bu ñu vacciné wu de waaye nañ bàyyi ba ndax woon di vacciné wu amul mais Abe. waaw eh, eh, ci sellal ko votre correspondant peut-être pour le moment veuillez appeler ultérieurement. jërëjëf.